Bienvenue, vous êtes sur la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. pour recevoir nos informations à temps réel. jërë ngeen jëf mbokku internetu TMS TV ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen jaar di leen jox seen wàccuwaay ah yéen ñi nga xamante ni yéen safoo la TMS TV saa su nekk ngeen wéy di topp suñu ay information ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. ñu ngi nuyu également mu Moulé Sow le xalif général de jinne ah le roi de la médecine traditionnelle di nuyu soxnaam madame Sow la reine di nuyu njabootam yëpp yëpp yëpp yëpp nuyu presse 1 ak presse 2 ñu leen di jaajëfal mbokk internet yi nga xamante ni à chaque fois yéen a choisir la TMS TV pour vous informer ñu leen di. béggewaat di leen kontaane di leen wax doole jël ndox yeneen suñu doole donc en tout cas ñu ngi xaar seen ay abonnement ngeen appuyer ci cloche de notification bi pour jot suñu ay information gën ñu yokk doole di wéy di liker di wéy di commenter di wéy di partager ah ngir yokk ñu doole baax a baax ñëwaat naa tey di leen présenter li nga xamante ni moom mooy la revue des titres comme ni ngeen ko xamee ah euh, dina am du lundi au vendredi gëj naa am nat mais bon ñëwaat naa de nouveau fas yéene leen ko présenter ah xam naa ni thème yi ngeen choisir pour renseigné wu pour déglu li nga xamante ni moom mooy information yi di ci kontaan bu baax a baax a baax dañ koy dooree ak bis bi le jour bis bi la jour ñëw andi nataalu ki nga xamante ni moom mooy professeur Babacar Gueye ah nee na professeur Babacar Gueye sur un référendum nee na le oui si ah moom nee na d'accord na ci référendum bi nga xamante ni ñu ngi koy ruumanaat temps yi yépp ah nee na je suis d'accord si c'est pour réduire les pouvoirs du président de la république nee na dina d'accord référendum bu fekkee ni dañuy wàññi doole président de la république ànd na ki nga xamante ni mooy nataalu Pape Alé Niang nee na il appelle le procureur à diligenté les rapports de l'OFNAC Pape Alé mais la pression sur la justice ñu jàll ci les échos ah indi nataal ki nga xamante ni moom mooy Tahirou Sarr nee na poursuivi pour escroquerie faux et usage de faux sur le TF numéro 6374 du DG nee na Tahirou Sarr purement et simplement relaxé ah ñëw na tamit indi nataal ki nga xamante ni moom mooy son excellence Bassirou Diomaye fay nee na Diomaye fixe le cap pour le second semestre 2024 ah mu ngi wax ci euh, deuxième semestre nguuram nee na dina ko euh, tënk ci rectification ajustement et reddition des comptes moom nga fas ne amal ci deuxième semestre nguuram enquête enquête ah ñëw andi nataal ki nga xamante ni moom mooy Mimi Touré di wax ci génn bi mu defoon nee na riposte vigoureuse aux opposants de jomaay Sonko mi Touré grève et bouclier ah ba tey moom mi ngi wax ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko jëmale ko ci ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall riposte yi mu def ak kàddu yi mu yëkkati yépp mi ngi ci biir enquête ñu jàll ci laas ah laas di waxtaanee la renégociation des contrats d'hydrocarbures maanaam càmbaraat contrat yi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum hydrocarbures nee na risques yi nga xamante ni ah moo ciy xaar état li quotidien la ñuy waxtaanee ah moom tey muy wax ci li nga xamante ni moom mooy 100 jours son excellence basiru Diomaye fay yi nga xamante ni toog na ko ci bopp réew bi nee na après les 100 premiers jours d'exercice en fait au travail maanaam nee na gannaaw 100 jours yu njëkk yi nga xamante ni def na ko ay exercice fi mu toog nii Diomaye dafa jublu ci liggéey bi teg choc gars yi pour ñu indi ay résultat yu yu leer te gaaw lool sax. l'informateur l'informateur tey mu dafa ñëw xëy ci li nga xamante ni moom mooy mënd mi ah c'est c'est très grave aussi lu toog ni Touba aussi euh, d'habitude euh, yàgg nañ ko gis Touba mais jot na nag inondation jeex pur biir Touba nee nañu inondation à Touba après la deuxième pluie 400 maisons abandonnées ah parce que tamit euh, taw bi bari na lool sax ba 400 kër yi nga xamante ni foofu ca Touba ah dañ kaa avant dañoo génn seeni ay kër ah bokk na ci quartier bi ñu naan Daaru Xuddoos Ndaamaatu Daaru Minam Soura Guédé et des habitants de Touba mosque envahis par les eaux alors nag son excellence war na ci jóg gaaw l'observateur ñuy waxtaane ci indiscipline au Sénégal la solution radicale ah li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum ñàkk yar gi ah ah ah voilà jéggi na dayoo lool jéggi na dayoo euh, discipline dafa baax qu'on se dise la vérité te Sénégal toog nañ foo xamante ni euh, dañoo jël indiscipline rek def ko base aussi nañ ko bàyyiwaat l'observateur ci la xëyee tey di ñu ko xamal indiscipline au Sénégal la solution radicale ñëw na tamit ci nataal ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mboup moom mi ngi wax ci li nga xamante ni moom mooy redressement fiscaux yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ah nee na les redressements fiscaux risquent de plomber économie nee na redressement fiscaux yi moom dafay ragal ni mu daaneel économie Sénégal jàll ci le quotidien muy waxtaan li nga xamante ni moom mooy taw fii ci Sénégal nee na succession intense de pluie l'orage nee na gannaaw taw yi fi am ah ndox bi mi ngi mi ngi mi ngi tiital gars yi ah, nee na de Touba ak Kaffrine plusieurs quartiers dans les eaux deux enfants meurent noyés ak Kolda maara deytaani ñaari xale dee nañu ah dañoo rab ci ci taw bi ah ca Kolda ah ñu leen di ma masaw bu baax a baax di leen jaare seen ay famille nee na Dakar sous la hantise des inondations ah nee na Dakar fi mu toog nii dafa nekk ci tiitaange ah ndax inondation yi ah, voilà le quotidien loolu xëyee tey duñu ko xamal taw bi tamit bari na trop bari na trop aussi ñu jàll ci réew mi quotidien mu indi nataal ki nga xamante ni moom mooy son excellence Bassirou Diomaye Faye nee na retard dans les nominations les cadres de Pastef traînent leur spleen ah, loolu la ñu réew mi quotidien xamal tey ah mu ngi wax ba tey lu jëm ci wàllum nomination yi ah jëmale ko ci ki nga xamante ni moom mooy son excellence Bassirou Diomaye Faye moom mi nga xamante ni moom mooy président ay nomination yëpp réew mi quotidien mi ngi ci wax wax ñu jàll ci source a source a tey xëy ñu naa ah di wax ci un patio sans fin nee na de plus de huit cent hectares l'aéroport Léopold Sédar Senghor réduit à une quarantaine d'hectares ah. mi ngi wax ci wàllum patio bi nga xamante ni am na fee ca euh, aéroport Léopold Sédar Senghor ba woon ah nee na caxat-caxatee bi daal dakkagul ba tey ah ñëw na tamit andi euh, li nga xamante ni moom mooy nataalu assemblée nee na transparence et redevabilité dans le secteur extractif des les députés à l'école ah ñëw na tamit andi li nga xamante ni moom mooy li xew ca université concert de casserole bi nga xamante ni am na c'est la première fois su l'ère Diomaye ah gars yi fi mu toog ni tëgg nañu tëgg nañu ay bool ah ñoom nag tëgg bool bi euh, seen sa seen ay càkkutéef moom mooy ñu gën a améliorer les conditions yi nga xamante ni ñu ngi koy dund fee ca UCAD ah, loolu la étudiants yi di ñaxtu le soleil ah indi nataal ki nga xamante ni moom mooy son excellence euh, monsieur le président Bassirou Diomaye fay nee na accès au logement loyer SICAP SN HLM foncier le président pose les fondation ah li jëm ci wàllum loyer bi waa wàllum dëkk bi ah son excellence Bassirou Diomaye fay mi ngi teg pression nguur gi ngir ñu gën mën a dox ay jéego ba mu wàññeeku ah. Sud Quotidien Sud Quotidien tey ñëw andi ki nga xamante ni moom mooy nataalu Ousmane Sonko lu jëm ci wàllum DPG om nee na respect du délai des trois mois requis pour la déclaration de politique générale nee na li jëm ci wàllum euh, déclaration politique générale bi en ah, délai bi. trois mois la woon mais fi mu toll nii nee nañu quand PM jouent la prolongation ba tey fi mu toll nii Ousmane ko defagu ko ah, ah lan lañ ci xaar ana lan moo tax defagu ko loolu yépp mu ngi ci Sud Quotidien turbine la ñuy waxtaanee ah mi xëy tey ci wàllum rapport sur la gouvernance et sur la reddition des comptes nee na la politisation de la haute administration publique inquiète l'IGE maanaam càmbar gi nga xamante ni IGE mi ngi ko doon def fi mu toll nii ah affaire rapport yi dañ kaa dañ cee indi ay politique ba tax na fi mu toll nii IGE dafa tiit ci loolu noonu moom moo tax ah euh, turbine tey xëy ñun ci loolu di wax ci fonctionnaire yi nga xamante ni ah ñoom ñooy responsable parti politique yeeg yooyu yëpp turbine tey xëy na ko indi na nataalu ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye dani ah la mu ca wax. ah nee na mi ngi mi ngi saluer euh, la couverture des activités de l'opposition par la RTS moom daal fi mu toog nii il jette des fleurs à la RTS euh, gannaaw couverture bi nga xamante ni defoon nañ ko ci sortie bi mu doon amal mi ngi rafet lu loolu yépp di xam ne ni kat RTS kat télé askan wi la kontaan na ci loolu dañ koy jeexalee ak Walf Quotidien muy wax ci exploitation du pétrole nee na la SAR le maillon faible lu jëm ci exploitation pétrole bi nee na Sarr dafa faible ci loolu noonu ah ñëw na tamit ba tey di waxtaan ci diplôme yi l'école politique de Thiès obtient l'accréditation de la CTI loolu moo gënoon fës tey ci euh, xibaar yi ah euh, tey loolu journaux yi xëyee tey ah waxtaanee li nga xamante ni moom mooy réduction des comptes waxtaan li nga xamante mooy euh, DPG Ousmane ko waxtaan ci pétrole waxtaan aussi aussi ci waaye bi nga xamante ni son excellence mu ngi koy sàkku ñu gën kaa wàññi amal ci ay wàññite bu baax a baax a baax ba mu oyof wax na tamit ci problème mu cent mille logements yooyu yépp ah dinañ ci gën a ñëwaat ci suñu ay émission mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen sur la TMS TV. Bienvenue, vous êtes sur la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer de notification. pour recevoir nos informations à temps réel.